صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ما هم الأبصر السفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد عن النفر هديت عن المولى وعن خير خلقي وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر السلام عليكم ورحمة الله يدعو لكم كلكم بلا جحسي يقوى دي la ñaanal جامل am jàmm yal na allah subhanahu wa taala def jàmm ju rëy ci àdduna bi ndax àdduna bi laaj na jàmm surtout Sénégal nga xam ni dañu commencé xam lu ñu musul gis ñu ngi koy ñaan ci 18 safar bi ñu ngi koy ñaan ci màggalu Cheikh Ahmadou Bamba mu Moustapha bi waxoon santal leen suñu borom tey fi ñu nekk muy sëñ kër Serigne Mor Ndiaye bi nga xam ni mooy bàyyi ci Serigne Mbacke Ndiaye bi nga xam ni moom moo fi jëruñu ndaw ñi bi ñu ñëwee ñu accueillir ñu accueil bu doy waar accueil bu am solo teral le bour alhamdou santaat di santaat bu baakha a baax sëñ Mbacke ndjay diko wax rafet na alors 18 safar bi magal Touba 2024 bi ala ndaw bi fi wacc ni Fora daru saram keur seigne Mbacke ndjay bi nga xam ni bayam bu sel bi seigne Mor ndjay ñu koy ñaanal gudd fa nak wel lol bay dundal fan lool ndax sa dund am na solo tay ma ngi and ak équipe Kajor Entertainment di ci remercier notre frère et ami Ndiaga Cissé ki nekk ci ginnaaw di cadre rek mu tudd Jean Bendia ànd ak Babacar ngi ànd ak Fanta seen envoyé spécial depuis Touba 2024 ñu gën ko xam ci Cheikh Moussa Sadd di sët ci sëtu Chérif Sidi Ahmed Khouréchi bi nga xam nga jógoon bani Khouréchi teew foofu ca Ndar fii sëñ Touba bindee Asirmal Abrari fi mu bindee Asmaul Ahmadul Badri fi mu teewalee lu bare moo tax sëñ Saliou Mbacke xalifatulaay fi ard lapsul bi tuddee woon bërëb bu subul salaam muy kër jàmm di digale chaque guddi àjjuma di fay wàcce ay xasida di fa joxe ay berne di fa def ay xéewal Touba di ab xéewal kon xéewal boobu yàlla na wàcc ci Sénégal wàcc ci ñëpp kon din duggal nañ leen wan leen berne yi wan leen xar yi wan leen nag yi wan leen bëy yi wan ginaar yi wan leen jën yi wan leen boisson yi ndox yi dara manqué wul ni ko Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Mustafaa waxoon noonu la ko kër gi muy kër Serigne Mbacke Ndiaye déggee boo fi ñëwee bernde yaa ngi fi macha allah di ñaanal ñëpp màggal Touba 2024 bu neex di leen wax ni na ñëpp def jàmm ndax jàmm rek moom solo Sénégal tool yi bare na buri xëccal fii bàyyil fii jarul na ñëpp bokk ndey bokk bàyyi pour ñu liggéey suñu Sénégal kon c'est mon envoi spécial Cheikh Saliou Sëñ Tuubaa rek liggéeyam ñu ba jeex rek sant loolu rek la waaw gan yi may itam bëgg na ndax woote ñu wuy si la dafa dafa yomb man ngaa luy ay siège boo xam ne man ngaa luy ay place waaye émission bi mu leen boo wootee ñu wuy si la

sant sëñ bi bu baax doon di ziar bi la ñuy sant lekk comme ni mu ko sant gi lépp ngërëm la ak yàmmu uh, yàlla la donc lépp lu fi waay def rek yaakaar naa ni sëñ Tuubaa tànga def te sëñ lépp lu mu rek yàlla moo tax lépp sant la sëñ bi nag moom dañuy dañuy fàttali suñu colère ak ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool. si kanam xaaral ko lu mu def ren bu dee nee mu def lu ko lu ko raw. soo dugg waaw wax alhamdulilah rabbil alamin rek. fekk daaw fekk ren moom cant rek. da ciy def. ah sëñ bi rek ci li ñu nett nag li ñu bëgg mooy bis bi tey waaye am na ñu ñëw jàng alxuraan jàngi xasaay bernde loolu tey ku ñëw fii yaakaar naa ne loolu am na fi waaw ñu sant yàlla bu baax nag jëm ji ñu fekk si tey mu Serigne Mbacké Ndiaye nit ku mu wóolu la leen teg ñun mu wóolu la leen teg itam Serigne Modou ci alaaj bi ñu àndal moo tax ñu wàcc fi te mbaax dafa am solo ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxul ñu bu la bëggee ngir mbaax saa yoo gënee baax nga gën daal kon mbaax moo am ñuy wax mooy ni ñu ko waxee si màggal bi yàgg nañ fee ñëw màggal man nag. koy faral samay wax ku may àndal te amoo tànk kanam man su may ànd ak yow bu ma def fii bu ñu fi ñëw mel mu yi yàlla dogal na at fi ñëwee ñoo gën a gis yokkute ñoo ngi ñaan at mu ñuy ñëw yàlla lay yàlla lay gën a dàq day ñaan yàlla sàmm ñu màggal màggal waaw di santaat euh, Serigne Touba rek Euh, comme ni ko sëñ bi diglee noonu la ko sëñ bi defee dane ginaar ba bëy xar ba gileem yàlla dogal na lépp suñu borom jàppale na depuis dimanche bu ñëwee ba légui lañ tàmbali magal bo ba légui ñu ngi benn war na dara manqué ndax euh, yaakaar naa wut nañ trente xar ak juróomi bay ak juróomi nag ak 400 euh, ginaar ak keesi jeun yu bari dara manqué wu ba ak banat lepp am ma sa masala suba nak lepp dina gëna leer inshallah allah rabbi daal dëgg sa ab sëriñ ñu waxé rek jumbi gañ rek la wara a sa bu démé rek mus la fekk wala jël ndigal jëfe képp ko wax xam ne def nga ko ba ren ba déwén Serigne xam ne suñu borom dina yëg bu nit loolu rek laa digal sama mbokk taalibe yi bu kenn gees ndax yoonu na xat na mais waaye nag lépp ba àjjana si barke Serigne Touba maaleykum salaam sant yàlla bu baax sant borom màggal bi tax woote bés bi tax ñu daje fii mhm. waaw bés bi moom dañ dafa wax ne bernde di bég di bernde te doo am xeej bi ak seen mm-hmm. noonu lañ ko fas yéene defee mm-hmm. tënk ci li ko sëñ bi santaane tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëñ bi mooy dañ ko sant fas yéene mm-hmm. xanaa laxasaay nekk sa bay faalu sëriñ waaye fas yéene laxasaay nekk bay faalu sëriñ yam ci li mu digal may lancer sama mbokk jigéen képp koo xamante ni da nga am laxasaayu nekk Baay Faal lu la digal nga def ko tey bañ tey moytu li mu lay tere loolu rek laa si am rek dañu jéem rek mënuñu mhm. nekk ci poste santé sëriñ bi day ah day li ma ci mën xam naa ni wax ci yàlla bari ndaxte ki nga xam ne mooy di way way yor di sëñ Thierno Ndiaye moom ak sama papa bi ñoom laa laa fekk sama papa doon du ñoom ñaar laa fekk kon loolu sama yàgg xanaa ni leen ñuy xool ci mag yi tey dégg ndigal képp koo xam ne yaa ngi def loolu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 هديت أن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لوت بسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر ربا